asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV tey nag ñu ngi toog ak Jibi Ndiaye Jibi Ndiaye nag moom mooy borom Gibson production mu dëgg dimanche stade Iba Mar job combat bu neex war a dox ci diggante brise de mer numéro 2 bu Thiaroy ak bulldozer bu Malika toog ak Ibra Faye nga xam ne moom tamit yaakaar naa ne ci biir ci Gibson production la bokk Jibi maa ngi lay nuyu di la ziar. Babacar maa ngi lay fay di leen sant bu baax. di rafet lu ñëw gi ngeen ñëw fii ku nekk xam na ne temps amul bu ngeen seen i yitte ñëw ci ñun yaatal làmb rek moo wax moo tax kon ñu ngi leen ciy gërëm di sant waa di foncé di sant sama xarit sama rakk Ibra Faye di sant euh, dëkk ba ma jógee dëkk bu ñuy wax sew Njaay ci boori ci di siyaare Baay Sëñ Mbàkke Gueye ak sëñ Cheikh Mbàkke Gueye ak sëñ Sayid ca kàddu boole bàlloo ji ak sëñ Assis Mbàkke maa ngi leen di nuyoo di leen wax ne leen nan dolli ñaan yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen nuyu Babacar Djibi Ndiaye defe naa ren ji mooy sa deuxième saison en tan que promoteur ci turu Jibson production. waaw bii mooy sama deuxième saison maa ngi bëgg a dem dimanche incha allah le huit décembre stade Iba Mar Diop ci diggante Brise de maire 2 ak Bulldozer waaw maa ngi ci woo waa Sénégal ñëpp di ci woo ahlu làmb di ci woo képp koo xam ne nii yaa ngi yëngu ci làmb di xam ne nag làmb jooju làmb la joo xam ne nii làmb ju ma fonk la. parce que day ñaari mbër yoo xam ne ni dañoo am talaa mbër moo mbër ñaari mbër lañ yoo xam ne nii dañoo dugg ci seen borom seen biiri morom def euh, wane lu leer quoi ma boole leen ñoom ñaar kon lamb ji am naa ci yaakaar te xam naa ne suñ borom dina sotta lépp ci kàttanug yàlla lamb ji mu mel ni ñaari xale nga boole ay espoir yoo xam ne ne ku ci nekk tey bëgg ndam moo ne ci yow espoir yu toll noonu dajale leen ci benn jour ñu bëri grand combat est-ce que yomb na dajale leen yomb na yomb li tax man problème mu combat du ma ko du ci am problème yow xam nga ku ci demee ni Abdoulahad Ndiaye bala ma yekkati sama kàddu pour wax ci làmb da koy négocier ba mu teg ci yoon ba nga xam ne nii dañuy dikk rek finaliser mooy des ah, yeneen yi ci des muy combat yu ndaw yi man lamb làmb ma ci problème ku demee ni Ibra Faye mi yow xam nga mooy nekk ci combat yu ndaw yi mooy lijjanti. Ibra active na moom. mooy nekk booy yi moom maîtrise na booy yi parce que booy yi ñoo bokk moom ñoom ñoo bokk même génération di jëfandoo ak ñoom di defandoo ñoom ba tax làmb man wax dëgg yàlla man awma ci benn problème waaw bu dul daal ñu ne ji bi ñëwal ma génn bis bi financé daal awma ci benn problème awma ci problème. Euh, ci côté organisation bi pour dimanche mën nañoo xaar parce que li tax ma la koy laaj amateurs yi dimanche passé dañu dund làmb ju neex. ak Fallou Ndiaye yow itam. te olof danañ yéexaat foofu rek dem da la fa sab loxo yow ndax dimanche mën nañoo xaar nga maanaam ci côté organisation ci animation nga indil ñu dàq loolu wala lu ñu toll bokk. incha allah dimanche yow xam nga ne lamb du ma ci gan. structure Jibson production toujours dama koy répété mooy gan ci làmb mais du ma ci gan. ku xoo ku xool daaw sama première sorte bi may taxawal be ama ak sang ñooñ dañ neen du grand combat mais événement ba ma ci defan defe naa làmb ji passé ëpp ko doole ba ma fa jógee ma dikk ci diggante Papa Yade ak Papa Boy Djiné muy combat. loolu rëyoon na. kon man événement <laughs> daanaka euh, te combat bi damaa yaakaar da combat bi ni ko waa Sénégal jëlee ak sama bokk yi nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi bitim réew nga xam ne lamba ji daanaka ci internet bi ci la ëppe doole. xale yi dañuy jël di defar ay vidéo maa ngi leen di nuyu des def mboolem ku defar vidéo ci Jibson Production maa ngi lay sant di la gërëm di leen xam ne di leen xamal ne maa ngi leen di jox rendez-vous ja Babacar. bu bu neexee yàlla ku ko tarde <laughs> di nga tardé làmb ju rëy. yi moom Ibra laa koy laaj mais balaa may dem ci ticket yi wala balaa ma koy laaj parce que moom laa bëgg mu tëj affaire bi tey gis nañ ne que combat boobu nga taxawalagu am na yeneen yoo taxawalaat pour sa pour sa prochaine journée. waa bi ma jógee foofu maa ngi jëm le premier mars incha allah ah, ci diggante Tigo xaritu yaayam ak booy Dakar. waaw yow loolu taxawal taxawal Tigo ak xaritu yaayam. waaw ak Boy Dakar. ci kaw xaritu yaayam ak booy Dakar. waaw kooku xam nga ne arène national laa ko yóbbu daaw moo tijjeen arène national sama benn xarit bu ñuy wax jéey seen taxawalan ko gis nga arène nationale daaw na mu ko defan mais man li ma yéem mooy ñoom ñaar techniquement man ñaar ñooñu façon bëri bi ñuy bëri xam nga li ñuy wax ndoxtu bëri tigoo da koo yor te ah, booy Dakar am ko a Jibi Njaay boobu combat itam dana doy waar de. kenn ki benn yoon la daanu su ma bañ te fen kenn ki mësul daanu te ci ne bëri nga onze combat defe naa Tigo xaritu yaayam bëri na onze combats dix victoire benn défaite Kër bëri na onze combats onze victoire kon xam nga ne lamb ju yéeme ngoogu. loolu kay doy na waa. <laughs> loolu yéeme na Babacar. mois de mars incha allah. waaw moom laay dencaat ba mois de mars ma boolewaat ci yeneen yooyu <laughs> Ibra xam nga <laughs> moom jinne la moom moo koy doxaat. wallaahi. waaw ok tey bu ma la laajee tamit ci din parce que promoteur bi ma jaakaaroon naa ko laaj ndax sénégalais ñoo koy laaj mu mel ni dañ ne làmb ji ren dafa am problème li ko indi mooy finance côté finance bi maanaam xaalis mbër yi li ñuy laaj seer ñii ne promoteur yi ñoo loo ciy wax loo ci ban jàngat ci am làmb ji yàqul amul benn problème parce que ku ci nekk boo xoolee li tolloog sa li ngay demee marché doo am problème parce que nag mbër yu mag yi am am na droit laaj parce que ku ci nekk sa produit ba nga yore yaa xam na nga koy jaay mbëri yu mag yi amuñu benn problème li ñuy laaj ñoom daanañ ko fi laaj lamb ji amul benn problème dari gars yi nga xam ne nii ñoo nekkan ci diggante bi ci ginnaaw ñoo def loo xam ne nii ci arène bi ñoo waral sponsor yu bari daw ci lamb ji mais promoteurs yi euh, mbër yi defuñu dara promoteurs yi fi nekkan ñoo daw loo sponsor yi wax ak ba pare la nga ko waxan defu ko kaam defoo ko lamb ji jàll ngeen di am ay problème ak yooyu moo waral rek sponsor yi téye seen loxo mais làmb fa mu nekkan ma nga fa buñ gis sponsor yi buñ gisee promoteur bu dëggu nekk ci seen kanam li nga leen li nu soxla nga leen koy jox incha allah dañu ñëwaat ci làmb ci te maa maa ngi leen di xamal ne sponsor yi man mii dinaa leen andiwaat ci làmb ji. yow di nga sponsor. sponsor yëpp dinaa leen andiwaat ci làmb. kon de xanaa mooy di nga waat combat yu mag yi ci làmb. combat yu mag yooyu nag ci laa jëm incha allah ci kàttanu yàlla mbër yi li ñuy laaj séerunu promoteurs yi ñoo dem ba nga xam ne ni am na ci ñooñ dañoo mbëkk miir yi taxaw parce que ay Eumeu Sène a ngi xaar ay Balla Gaye ay Modou Lo Ama Lac de Guiers mbër yu mag yëpp a ngi xaar kenn ci amagul combat ak ñoom Tapha Tine ay Gris Bordeaux non mbër yu mag yi moom incha allah dina am combat sama xarit Baye Ndiaye mi ngi fi te xam naa ne moom day dallu nii rek mais bu jógatee rek ñëpp xam ne jóg borom alburaax alburaax ONG mi ngi fi te xam naa ne moom dafa taaxirlu di déglu gars yi rek comme pënd bi wuréegu day bàyyi ba pënd bi wuri rek mu def bu sew moom maa la wax lii <laughs> waaw mais son daal pare na pour indiwaat sponsor yëpp. waaw incha allah dina ñëw ci kàttanu ak yàlla parce que boo leen wanee dëgg rek man du ma ah, Babacar tey dinaa la ko wax daaw tëgg naa làmb ba pare ku ma tuddee làmb taxawuma ci sa buntu kër di la sonal parce que am na lool boo ko dee def nit ñi nit ñi dañuy dem ba jéppi la wallahi alazim daaw tëgg naa lamb mel na Babacar bu Karim Wade moo yëkkati xaalis jox ma ci mais keneen ñeneen ñi ma tëgg làmb yëpp laaj ma ci ni cent franc. dina tuddee drapeau naturellement rek. dina tuddee drapeau jaaruma ci ñoom sax. Babacar moo ñëw ci làmb ji yëkkati enveloppe ba muy jox jox ma ko maa ngi koy nuyu de passage mais man du ma sonal kenn ci affaire sponsor du ma astafurla man affaire sponsor waaye tudde làmb di daw ci sa ginnaaw lii la lii la non man du ma doxee noonu Babacar. ji bi léegi ma dem ci sa waay mu tëj. Ibra waaw waaw ba demal ci Ibra Faye sama doomu ndey sama. Ibra maa ngi lay bëggee waa waaw maa ngi lay bëggee Babacar. yow laa rek ci côté ticket yi pour dimanche mais balaa lool nga cofal ma ci sa digganteeg ji bi rek. non jibi sama grand la sama nijaay la ku baax la tamit ah. ku yàgg a sonn ci làmb nag man li ma koy conseillé rek mu dal te te fonk ni ci démbam quoi parce que xam nga ne yombul quoi bu ko succès bi jaay xam nga ba mu fàtt ni ci démbam bu mu rëy rëylu bu mu ngand ngandalu te moom sax wanewul loolu ko mais dama koy gën a dolli ci loolu rek xamal ko ne na fonk nitu démbam daal maa ngi nuyu ku mel ni Abdoulaye njaay comme ni mu ko waxee moom moom lépp moom la Jibson production Abdoulaye njaay la mention spéciale ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp nag staff Jibson production bépp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax xam nga yombul quoi jibi bu xase buñ xasee taxawal grand combat yi mook Abdou Lahad combat yi ndawee duñ ma woo man maay monter lépp waaw man maay indi mbër yi monter leen te jibi du ci wax dara maa ngi koy remercier ci lool bu baax di ñaan nag xoolal yàlla bàyyi ñu quoi parce que tamit xam nga ànd boo gis gars yi dinañ bëgg mu demee nii ak ne mais nag ñu ngi ñaan yàlla daal ñu bàyyi ñu suñu diggante dëgër quoi parce que lool la rek. ànd te yàlla tax loolu am na solo ticket yi ñaata la pour dimanche incha allah. ticket yi waaw ko yombal nañ ko rek euh, tribune supporters yi ñu ngi ko def 2000 amateurs yi ñu ngi ko def 3000 loge bi 5000 la. waaw loolu lañ def quoi. loolu daal la. waaw te ba pare ñaari grand combat lañ leen indil quoi. animation bi. waaw animation bi woo nañ woykat yëpp dinañ ñëw woykat séeréer yi dinañ ñëw woykat olof yi dinañ ñëw du sekk kenn du manqué daal ci kàttanu yàlla waaw. dinañ leen wan cosaan daal kon ñu joxante rendez-vous dimanche incha allah wit incha allahu rabbi di ñaan yàlla dugg ci ak bisimilahi rahim génn ci ak alhamdulilahi alamin wasalaam